le 12 Mama Terrain Galgui 2 millions 500 ten Kaari Production tagi Mama Galgui Ndeye Fatou fo Maodo den nan ndef ka moƴ no animation fe bo xaye i ndeta leera Mboye Production oxey organiser a dimanche le 12 arène Adrien Senghor hotoɗen piirke 1 million mama gon fomo naɗefkama bo xaye dimanche fene mana adrien segor mama mbayan dimanche terrain gal gi bari production 2 million 500 mawɗo fonnay fatou a jega oxa licence uma somna moussa diouf jeg fa licence refo wad moussa Abdou Faye Daari Ndondol ma gis naa sama remède Abdou Faye Daari Ndondol. Diofior na xarben ɗik ka Yeah.